leen waajee lëndi papi sang noonu kaay ma fekk ko papi sang noonu même ma jox ak moom ñaari baat papi nuyu naa ngi lay fay sant yàlla naka wàccaay non fàttewu ma ko de ana mi firgo bi ah. waaw ko mais papi li ma jaaxal faral maa ngi lay yaa ngi en direct Dakar Buzz mais Modou Lo dafa natta ñëw ci open presse wala fu ne lii loolu mais mi ngi nii di yegsi deux nga gis ko ci kattanu yàlla nan ngeen waajee comme ni ñu daan waajee rek. <laughs> yow da ngaa defal lu doy waar ci stade bi ñu sànni dara Modou Lo ko daw ni ko man mosuma xam ne. am mbëkkat nga. man <laughs> loolu passé na. mais seen diggante combat ak Boy Niang rek di ñaan yàlla ndam rek amul benn différence. di ñaan yàlla ndam rek incha allah. waaw ah, Boy Niang di mbër mi mën a calculer du naqaree bëri. moo tax ñuy ñaan yàlla bu doon lu ñuy jëli la kon ñu dem jëlee ko sunu. ñaan yàlla d'accord mais stratégie yi ngeen teg ci Boy Niang lan lay doon. yàlla baax na bu bis ba rek <laughs> incha allah bu bis da nga mel ni ko xaw a tiit la. waaw mën na nekk tamit. xamee ma la tiit. <laughs> xam naa dama tiit yàlla baax na. jàmbaari borom maam Thierno Diouf. waaw nii de di ko nuyu bu baax. Thierno Ibrahima Fall ne fu gudd fan. di ko ñaanal jàmm mu yàgg fi loolu te wér. nga tudd xale. wallaay wallaay di ko ñaanal jàmm rek ak wér. fan gu ànd ak wér gu bari. di ko ñaanal saa su ne ak njabootam yëpp. waaw xam naa fi ma koy jàpp boo tuddee Thierno Ibrahima Fall rek da lay déglu da xam naa fi ma koy jàpp <laughs> daaw na waaye Modou léegi bu dikk Modou léegi mu dikk ku faral Modou Lo defal ma kër ku faral boo ñaa defal ma loxo ah waaw Modou Modou nee ma dans deux minutes Modou ñëw maa ngi xaar nee na ma dans nee na ma nee na ma dans deux minutes Modou Lo yegg si bu yegg see moom xam naa des Modou Lo si dootul bareet kookaan la Pape daa am ko ne ci ligne bi ku dugg na tënk rek allo ku baax nuyu naa la. Lamine Thiapathiolle naa la Lamine Thiapathiolle maa ngi dama doon jël Papis xarañ loon Lamine nan ngeen waajee lundi. ma ni Papis moom. waaw. waaw am nañ fa cër fi muy rootee am ngeen fa am nañ fa cër. fa cër. la. <laughs> kan la kooku. wax <laughs> bu génnee dinaa ko laajaat loolu ma ne ko ma ne ko ma ne ko Lamine càppaacul nee na fi ngeen di rootee am na fa cër. nee am nañ fa cër ndax ah. waaw. ah <laughs> Lamine da ay wax de. waaw arrêté téléphone ndax mu leer. wax laa la wax de. ah am tax na nga jël sa cër. ma ne wax laa la wax de. ah bu génnee dinaa ko wax. <laughs> waaw bu génnee waxoo ko. d'accord jëlal ma keneen ku ne ci ligne bi ma xolaat keneen ko xam ne entre Modou Lo ak Boy Niang ku faral Modou Lo defal ma kër ku faral Boy Niang defal ma loxo loxo yaa nga jóg.